97 guddi gi day neex kër gi day neex gàlle bi day neex féppay neex féppay dëgër ñëw na. alaaji ibulaay mu loo yegsi na boobu nañ fi lu yàgg di ko xaar nag mu ngi doog a yegsi fii ci këram jóge Lac Rose ñëw inter 10 pour jaaree nii dem fi nga xamante ne mooy cosaan ibulaay ngi nii El Hadj ngi nii waaw ah, dafa leer seet tët la woon foon rek du yomb de roi baa ngi nii de bu wóor a wóor bu baax bi seet tët boobu doo ngi wàcc. xam naa nag. soxor soxor bi. xale yi ñu ngi naaj. entraînement la jóge rek di saafoonte ak euh, fans yi mu ne bi ñëw de mais noo gisee noo te gis nga ko. fa la jógee te gis nga ko. waaw. ah. Sall waaw. ak lumière la <laughs> seet tët tët tët ci El Hadj ci El Hadj Diouf. mais Diouf sa waay lu mu nar. waroon nañ am rek mooy li ma Modou Lo léegi mu génn moom la ko mën a arrangé. Thank you.